bon tey dañu daje fii ci permanence u national parti démocratique sénégalais nga xam ni mooy sunu màkkaan c'était pour ñu waxtaanee euh, campagne de collecte des parrainages su candidat Karim Meïssa Wade xam ngeen nii ba ñu jógee ci dialogue national bi dañu ni léegi parrainage mën nañ ko defee ci ñetti façon parrainage citoyen mooy bu daawoon di def parrainage par les députés ak parrainage par les élus locaux muy parti maire yi ak ak président de conseil départemental ñun nag dañu ni mënoon nañu rek ni sunu député yi ñëw leen parrainer en une heure de temps mu jeex ñu teg sunu ay këyit di xaar bon mais ñu ni vraiment sunu militants yi sunu sympathisants yi dañu soxla gis la nga xam ne nii moom moo leen di taxale ak Karim nga xam ni làmb daj la mooy fiche bi fiche de parrainage bi moom la ñuy wàccee ba ci base bi fekk citoyen bi fa mu gën a sore fa mu gën a nekk te mu bugg a ne Karim Wade ñu may ko occasion mu parrainer Karim Meïssa Wade voilà plateforme bi jumtukaay la bu am solo bu méngoog candidat bi ci boppam muy Karim Meïssa Wade xam ngeen ni Karim nit koo xam ni kii dafa am imagination macha allah ba pare dafa bëri innovation maanaam lépp lu ñu def rek moom da siy dugal leneen lu bees lu raw la nga xam ni def nañ alors ba ñu nee pare parrainage citoyen mu ni mais c'est bien ngeen di jóg di dem di fekk nit ñi di leen bind seen ay tour si këyit mais en même temps parallèlement nañu def benn plateforme boo xam ne bi day permettre nit ki à partir de son portable su duggee ci plateforme bi mu inscrire inscrire jox renseigner renseignement yi ñu ko laaj yëpp mu def ko si su ko defee ñun au niveau central dañuy am déjà une vision dañuy am déjà benn gis-gis si ña nga xam ne ñi nam mën nañu voteel Karim Meïssa Wade muy ci biir Sénégal ak muy aussi à l'étranger agsi na agsi na la defe naa su ngeen ñëwee yéen da ngeen di faral di ñëw fii di dajeeg militants yi di gis kër gi nu muy yëngatoo ngeen di gis nu ñuy organiser woo fii ngeen xam ni defuñu ko pour koo xam ni kii ñëwul lii ñuy def c'est pour koo xam ni kii day ñëw ce n'est qu'un problème de temps incha allah léegi mu si je pense que daanaka problème mu jas suñu dégagé benn piste rek mu wàcc incha allah Maguette Sy secrétaire national chargé des élections du PDS coordonnateur national de la campagne de collecte des parrainages de Karim Meïssa Wade merci. cinquième président Karim Wade